ayca présentation baa ngi noonu mbokk yi borom soow mi moo nekk noonu Diop 2 borom suuf si moo nekk noonu jeex jàmm làmb jaa ngi noonu Diop 2 am na ku dugg am lu mu ko sottiwaat drapeau Pape Malick Ndour mobilisation bi takku na lool ci ñaari xale yi dañoo duy stade bi ba fees del jeex jaam ma ngi noonu waaye ñaari tale ngi noonu jëlee ma xale yooyu ñoo ñaa ànd jeex jàmm xale yaa ngay yëngal ña koy yoolee borom soow maa ngi noonu <laughs> cey yàlla cey yàlla cey yàlla aw oh. lamb xale walaay ndeysaan aw oh. Khalil Diop dee ngi noonu dimanche 2 février 2020 ci làmb daan Seex bu Waalo daan Seres daan Sa Thiès daan Building daan Armée 2 daan Siteu Ant daan Farou Jar daan Kélémanso huit combats lam huit victoire jëlal ki jeex jàmm la dimanche 8 mars 2020 la dugg ci làmb ñoom ñaar rawante wuñ kii février kii mars daan ki nga xam ne mooy fils de Ndiouga daan Ama bu Yoff daan Milku Sow daan Souley Gaynde daan Ibou Afia ndeysaan daan Bébé Bismi sept combats sept victoire jeex jàmm huit combats huit victoire Diop numéro 2 arbitre baa ngi noonu nee nañ ko fompal Diop 2 daa niin jëlal Diop dafa niin mi ngi noonu ña koy fomp moom Diop numéro 2 combat la boo xam ne xalil yaakaaruma ne mën naa yàgg yooyu yàgg de saa boo déggee ne mi-temps nañ rek niil mën naa am waaye cinq minutes yi gëm naa ne mën nañ cee tàqali ko jeex jàmm pied droite lay jiital Diop 2 pied droite Diop 2 nag bu xamee li muy bëre combat bu yomb lay bëre waaye bu ko xamul combat bu difficile lay bëre jeex jàmm nag combat rapproché la war a bëree Diop 2 ba arbitre sifflé mu déclenché ci kawam daw jàpp ko déema laxasu ci ndigli Diop 2 ma doon ma arbitre bi sifflé damay suul samay tànk direeku droite lay jiital jéem a xeexa moom ci croisé droite ba jeex jàmm yooru ma jëm koo jàpp parce que boo dee xool différence de bi am na Mor lamb jaa ngi nii. waaw lamb ju doy waar mën ne wax dëgg yàlla tey jii ñaari mbër yi rempli nañ seen contrat ku si nekk mérité nga ndam. arbitre bi sifflé na Mor. arbitre jiital droite jeex jàmm jiital droite borom suuf si borom soow mi ana luy xew ana mbayaar kat yi ana kaaw kat yi sëñ Baara Brésil nuyu sama xarit. nijaay sëñ Moustapha Ndiaye maa ngi lay bége Fallou Fallang ca Touba le grand di ma seetaan bàyyi jili Colobane bàyyi jili Tarkinda waaye petit production pro lavas moo ma sañseel ci dàll jeex door na petit production moo ma sañseel doomu ndeyu internet jeex dooraat na Diop door na petit moo ma yu rafet jeex ak Diop Diop à droite jeex à gauche loxo bëre Diop door na jeex door na Diop door raak jeex jam bu ma doon yow a duma xeex jeex sersel combat rapproché bi xeex bi baaxul ci yow Diop seel combat distance bi xeex bi baax na ci yow lamb jaa ngi noonu <coughs> cey bi combat buñ jàppantee rek bëre feeñ ndeysaan mbayaar kadi ñuy teg ci Diop 2 ñuy teg ci jeex jàmm taala bu jeex jàmm foo féete zungale foo féete ndeysaan seet tët tët lamb jaa ngi ni dimanche 20 août 2023 jàppante jàppante jàppante Diop na ko bañ na waaw ah Diop mii conseil la bare dan ko bul jàppante bul puusante xeexal ak moom ba mu bàyyi waaye jeex da koo war a forcer force jëm ko dóor droit jàpp ko dóor na ko jàppante nan jàppante nan zongale na ko jeex tag na jeex tag na jeex ak Diop zongale na ko ba ca kaw ba ca kaw kot daan ko jeex jàmm daan na Diop 2 daan na jeex jàmm Diop 2 Diop 2 daan na jeex jàmm zongale na ko ba ca kaw dóor ci suuf ay waay xale baa ngi noonu neuf combats neuf victoire laay laay la laa zongale na ko ba ca kaw dóor ci suuf daw na nee na supporter jeex yi maa ngi jéggalu Diop de songale na jeex jàmm ba ca kaw dóor ci suuf xale baa ngi noonu borom yëmbal laay laay la laa daan na ko jël bu amul benn werante daw na ca supporter yi jeex jàmm yi ak a pele xool ko daw na ca supporter yi jeex jàmm yi ne leen maa ngi jéggalu oh. bu ko waa yëmbal jàppalee mbër la champion la ndaanaan la waaye jeex jàmm n'est pas démérité champion nga def nga lu nekk ci làmb Diop de sa morom la bu la daanee war na laa daan mbokk yi làmb bi jaa ngi noonu Xalil jërëjëf